tey jii euh, ñëpp xam nañ ni mooy samedi bi njëkk ci weer bi euh, président de la république euh, moom moo instauré bisub sellal bisub setal wax ni samedi bi jiitu nañu ñëpp ñu jug ñu mobiliser wu setal sellal gox yeeg goxaan yi mu wax ministre urbanisme que lépp luy moyen na dégager day jii ku ñëw fii ci jamñaajo gis nga moyens yi nga xam ni UCG euh, indi na ko muy ay pelle mécanique muy ay benn mais également xale yi nga xam ni dañ leen recruter ci initiative xëyub ndaw ñi ñu toll ci ñetti téeméer ñu mobiliser leen maire Diamniadio indi ay équipe ñu jël axe bi pour seetal ko tey jii axe bi nag choix bi dafa pertinent parce que fii ñu taxaw.

ñu saxal ko mais ñu continuer bu ñu jógee jam ñaajo dem ba sibikotaan jógee jam ñaajo bor bi dem ba barñi ñuy def nag appel à tous les maires niñ ko defee ci mulay maire nag muy maire yi démembrement état la donc seen warugar mooy dugal seen loxo ci politique publique yi donc ñoom maire yëpp nañu jug ànd ak askan bi ànd ak autorité yi ba initiative bii nga xam bu baax la bu rafet la bu genereuzler ñu doon initiative bu ñuy saxal. am na solo ndax euh, nekk na bërëb boo xam ni bëri na fréquentation ndax Diamniadio Carrefour la li ñu fi ñëw def si nag mooy fësal li nga xam ni moom la chef de l'État dis ne maanaam bésu setal bi ñu delloo ko askan bi tàmbalee ko ci école yi mais aussi endroit yi nga xam ni c'est des endroits iconiques comme lu demee ni Diamniadio loolu waral suñu teewaay fi tey mobiliser nañu aussi ay moyens matériels yu demee ni ay camions douzaine de camions si linéaire bi fii di ko tàmbalee Pointe de Diamniadio ba Sébikotane ak aussi ay pelle mécanique mais li ci ëpp solo moy personnel bi nga xamni mom lañu engagé mat na ci 300 euh, jeunes qui ont un ci programme qui ndaw dañ leen recruter pour accompagner dispositif bi mais leneen aussi li ma ci dire yok moy bu lii lu une équipe permanente parce que bëgguñu aussi liggéey tay dellu ci fekkat euh, la même chose donc aspect suivi ak pérennisation bi amna nous solo ñu avec ci l'ensemble des équipes du ministère de l'urbanisme de l'hygiène publique et du logement le ministre est même représenté ici par notre directeur de cabinet monsieur Abbas Ndiaye avec la direction générale du cadre de vie à travers les écovigiles que vous avez vu aussi et l'ensemble des agents de l'UCG que je remercie au passage. ma wax ni bis bi koy bu baax parce que jàpp naa ni euh, lépp loo xam ne lii day tax doomu adama, dina am wérgu yaram dañ koy ci war taxaw surtout maire collectivité maire ak commune parce que nous notre mission mooy fexe population yi am jàmm population dund ci condition yoo xam ne yi wax dëgg yàlla ñëpp dañ koy rafetlu looloo tax mooy kontaan ci bis bi ndax wérgu yaram moom lii tax mu am mooy set set kon set bii

loolu la jàpp. ñu ñu wax ci ñu def suñu loxo bu baax a baax. puisque suivi bi ñi ngi ci woon démb. te dinañ ci gën a nekk incha allah puisque man jàpp naa ne ku ma xam-xam ni seet set dama jàpp ni dafa baax ci dunduk doomu Adama.